dañu wara profiter ci bala bi ngir d'abord changer suñu comportement waaye aussi fexé ba baña dépendre ci bitim rew parce que liñuy importer mu jógee bitim rew dafa bari té pourtant am nañ matière première li gëna doy war sax moy danañ imp danañ importer lo xamni matière première fi la jógee té bu ñëwé day gëna cher ñu consommer ko kon nguur gi euh, euh, dañu wara profiter ci événement bi ci li xew ñaan yalla mu dakk waye énergie bi nguur gi développer semaine bi pour xeex euh, maladie bi na développer lu toll ci énergie ngir ñu produire sur place ngir ñu am unité industrielle non seulement day créer emploi mais dinañu wàññi import importation bi te bu ñuy produire fii di consommer mais day tax ba xaalis bi di yem ci réew mi autant ceeb autant euh, am fi jamono jo xam ci walu walu mburu sax dañ ne ay ñebe ak dugub lañ daan defaree mburu loolu mën naa dellu siwaat kon yella na fintoon ni en tout cas moment bi moment bu opportun la ngir ñu changer comportement ndax chinois yi nga xam ne ñoonu sànni lu musiba gi ñoom bu oppor bu calamité amee ci seen loxo dañ koy changer opportunité comme par exemple exemple laa leen jox rek inondation day am seen kër yëpp taa ci sax dañu fexe ba ndox mi dem ci àll ba ñu koy bay donc loolu dama wax Sénégal nañ changer comportement te autorité ñoo ci war jiitu ci encadré ñu ñun consommateurs yi ñun yi ñun producteurs yi ngir loolu mën am